loolu moom euh, dafa ñëw si suma xel waaw kenn waxuma ko d'ailleurs man xamoon ne sax fii am na benn bi ma ko waa laajee lañ ma wax ne fii am na bu nekk Dakar d'ailleurs bu nekk Saly laa xam ma ne xaaral ma ñëw indi leen euh, ay affaire parce que ñoom xam naa ne dinañ ko soxla te ñu ko yeloo lañ mu doon yoo xamante ne mu euh, ñu nekk si période bi nga xam ne période fête yi la nawel man naa ay doom tu vois. dama defal cadeau tout ça xam ne fi nekk nii tamit xale yi soxla nañu loolu moo taxoon fan yëpp maa koy doon préparé pour ñëw fi nag tey xëy na yàlla dogal. c'est la première fois xëy na sax yéen ngeen fekkee ko di def yéen social yi mais mosuma ko def si si xale yi xaw moo ne am na fii sa Dakar waaye mais bi ko xamee dama ne suma sœur bi lii chaque année su ma ñëwee dinaa fi jaar. et que kenn conseil ma ko kenn dafa doon lu ñëw si ma bopp man damay dox si li nga xamante rek ñi nga xamante soxla nañu ko

bu meew jeexee ñu jënd ko xale yi moom yenn saa yi boo gaaree sotti sax ñu ñëw sa ci sa côté noonu xam nga waaw loolu moom yàgg na fii te bu ñu nekk booy gis nañ ko loolu moom xool maa ne kenn mënu ko dindi fii mais lu daw yaram lu naay sul quoi tu vois la nga gis leen duñ sol daal man dama si sarax ba yenn saa damay mer dangay sax ni mu gisaat la léegi ñëwaat ma ne ko yow yaa fi jaaroon léegi nii non affaire tooyante ñoom vraiment lu loo xam ne man su ma sañoon man moom man man man tey su ma yàlla mayoon yenn possibilité te après genre yi nii naa si dugalaat ni ci xale yu bari yi nga xamante ne dinaa jox lekk ak naan di leen lu yére mais nag euh, xëy na eggaguñu foofu parce que nit da ngay wax li nga xamante ne moom moo nekk si sa xol xam bu dee dëgg la rek yàlla dina la ko dina la ko defal waaw noonu la mais nag lu lu daw yaram la parce que tey ñoom ñëpp si mbedd bi nekk si daara yi xam bu ñu sañoon si kër li ñuy nekk bu ñu leen amoon ku leen fat foofu li ñuy nekk toog fa Je ne peux que dire merci et lui confier vraiment à la miséricorde et à la bonté divine. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour la société sénégalaise et pour d'autres, et en particulier pour les enfants de la Poponnière, ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait aujourd'hui. Ça me va droit au cœur et au nom de tous ces enfants, au nom de leurs parents, au nom de toutes mes sœurs et de l'équipe, je vous dis merci, Maïdiane. Merci infiniment. Que Dieu vous le rende au centuple et nous continuons de prier pour vous, pour votre carrière et tous vos projets que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie. Que le Seigneur vous, les assiste, vous assiste et vous donne vraiment la grâce de les réaliser pleinement avec succès. Merci à vous. Merci aux parents qui vous ont donné la vie et qui vous ont permis vraiment d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Merci infiniment et bon courage. Bonne et heureuse année 2020. Que l'année 2020 vous apporte beaucoup de grâce, de paix, joie, prospérité et réussite dans toutes vos entreprises. Merci. Merci